digle na Mbaye Difoncé waa Mbaye Difoncé fu jëm waa lii nag génn na arbitre bi dina ko avertir dellusiwaat na Mbaye Difoncé ak Jackson arbitre bi joxoñ na ko joxoñ na ko bu baax ni ko avertir naa la arbitre bi sifflé waat na Mbaye di Fonse Jackson Mbaye di Jackson jàppante nanu Jackson jàpp na Mbaye di sukk na benn tànk bi Mbaye di Fonse sukk na benn tànk bi Mbaye di ak Jackson Mbaye di ak Jackson jàppante nanu Mbaye défoncé Mbaye défoncé xatar ba nan ko daan ko Mbaye défoncé xatar bi nan ko daan Birahim loo ci wax da ah? ko daan ko rek man na ko daan lu Mbaye défoncé def ban daan ko ah, li mu maye bari na de ah. alaaji Papa Dia Mbaye bëriwu fi daan sëqi na lu daan waane waaw xam nga làmbit daan rek a ci am solo waaw boo daanee wàcc nga waaw te bi mu ñëw loolu la wut si am na ko déet wane na jàmbaar dafa ay looy def bu gaawee te jaar ci yoon rek dañ ci am ndam nga nag na gaaw nga def na gaaw wóor waaw ndax bu wóorul du mun a gaaw te dafa wóor loolu moo tax mbir mi gaaw dëgg la am na ku ma yónnee message mu ne ma tey cachet yi nu fay mbër yi mbër yi jot a bëre mu ne daal mérité wuñ ko ndax bëri wuñ fi benn benn waay la kii nag Odile Sarr la tudd mannequin la ma nga Paris bëgg bekkaay ñu ngi koy nuyu ñoo ngi nuyu As production moom dimanche le 20 mai lay organiser ca Kaolack Tyson 2 ak licence keneen ki nag amateur moom li mu bëgg mooy lu yegg lu yegg voilà Ahmed Mbaye abi depuis Sevran en France waaw maa ngi leen nuyu bu baax Fary Mbaye Fary koy nuyu bu baax ak sama jigéen Fary Mbaye drapeau du Ndiaye Mbengue la bëgg a taxawal mu di mbay ñaa bu Rock Énergie ak Boy Town bu Soumbédioune am na yeneeni combat yu bari yu fa am drapeau Dikko madame Dikko ne Aïcha Sow bokk na ci drapeau waaw kooku de Eumeu seen la mi ngi wane boppam moom it ndeysaan làmb dañ koy liggéey danga koy liggéey ba bokk ci te ëmma liggéey na ko ba bokk ci waaw am fulla am fayda mais mbay di foncé ba léegi génnagul géew bi xam nga mais mbay di na muñ làmb nii la léegi nag ñu ñëw ci ki nga xamante ni mooy borom ndam li ah. Jackson Jackson a ngi noonu Jackson jëlal micro bi combat bi gaaw na de. waaw gaaw na kay. nu mu demee noonu. waaw liggéey rek a wóor. Mbaye défoncé nangagul a génn géew bi ba léegi. ah mais daa am déception rek. ni mu ko woon la demeewul quoi. lu mu foogoon dafa yaakaaroon da ngaa yomb yow. non yomb moom ma yàggee seetaan war naa xam ne yomb ma. Birahim loo koy wax. booy bii Mbaye défoncé. waaw wax naa kañ bi mu ko jëlee. kañ yi jël combat ma ne kañ yi bu ko jox booy bi mënuñoo bëree man xam naa li ma la que boo yoree école di nga xam di nga xam ñi ci ñor ak ñi ci man xam naa ñi ci ñor agal toujours dama lay wax élève Pape élève CM2 mënut a def bac élève CM2 mënul def bac. waaw amul parce que xale yu ba dañuy yàkkamti am combat mais ñoruñu ñoruñu ñoru bëri. entraîné woon na entraînement bu tax ñu bëri parce que ciy ñor bu ñu bëri rek da ngay xam ne kii am na ndoxtu waaye ku amagul ndoxtu yàkkamtee dugal làmb nii rek lay demee man xamoon naa ne wax naa ko Kandji Mbaye ne ko combat bi nga jox baay bi mu ne mën nañoo bëre ma ne bu ma sayoon duñu wax naa ko kanji mu nga nee di ma dégg su ma sayoon wax naa ko wax dëgg la xaw ma booy bi mais booy bi laa. xam bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama quatrième combat. ñaata victoire. trois victoire benn match nul. benn match nul. waaw kooku yaakaar naa ne pourcentage bu baax la. waa waaw léegi nag. kàddu bu mujj nga may ma tudd ma gërëm rek. waaw bu mu bari. waaw ginnaaw bu mu sant yàlla jël si yéen tamit. waxoon nga ko. di gërëm samay waajur. di leen remercier lu bari bari bari di gërëm waa buun bu baax a baax rawatina ay waa waalo maa ngi leen di gërëm bu baax man waalo waalo pire la mais dama dëkk buun wax dëgg yàlla population buun ñëpp dañoo génn poussé ma vers la victoire ma ñëw tamit ñu sas ma mënuma lu dul bëree daan xam nga di remercier ku ci mel ni nag Zeynab Fall ñoom Père Sidi Ndiaye ñoom euh, Ndapé auto école di gërëm sama waa staff bu baax a baax ku ci mel ni Amadou Ndiaye maa ngi koy gërëm di gërëm Abdou Koli di gërëm Baba Sow di gërëm Ablaye Diop yaawa Dial di gërëm suñu Ablaye Diop di gërëm ku ci mel ne Sadibou di gërëm ñoom Ndaraw ñoom ñëpp maa gërëm ñëpp Begaay di gërëm ñoom na Fall seen internat bu wax dëgg yàlla xaaj bu bëri la jël jox ma ko Begaay xoolal mbay di foncé ba léegi la yor mais dafa jël xaaj bu bëri jox ma ko di gërëm Ismaïla bu baax bu baax di gërëm waa daara ji bu baax di gërëm nag Bac Seras bu baax Bac Seras maa ngi koy gërëm bu école de ah. lutte Mansour Mbaye jërëjëf mais dañoo bëgg promoteur ñu jàppale ñuy bëre waaw waaw surtout écurie Mansour Mbaye war na yàlla dañu war a jàppale ñu bëre bëri nañ ay booy yoo xamante ne si ñëpp am nañ licence. waaw mais bëri rek moo ci des. dëgg la ndax wax dëgg yàlla ñoo gërëm ñëpp di gërëm waa Buun di gërëm waa Casamance di gërëm eh, ñëpp booy sa gërëm Bekay Mor Dior déglul rek père may ma rek Mor Dior Samba mi nga xamante ne si regroupement yi tey moo ko jël en charge jël oto yi wax dëgg yàlla Bekay billaay wallaay may ma tey na nag ah, may ma tuuti rek non lamb ji commencé gul. eh booy da fii toog ba keroog la. man maa ngi lay gërëm yow di gërëm sama père. waaw mbay di foncé bi yebunu. di ñaanal kanji fu mu bëgg a egg yàlla fa eh, yàlla eggale jërëjëf. mbay di foncé ñëw na. eh xajalal mbay di foncé. eh bon. eh, eh mbay di <laughs> xam nga mbay di daf may yeb. eh Tino. <laughs> Eh, yow lan ngay jooy. damaa am ñoom ci combat bi. waaw après du daan na la Bécaye man lu ma jooyee nii xam nga ne Bécaye na am ñoom ma jàppale. xam rek moo ma métti quoi Bécaye xam nga ci combat bi xam rek moo ma métti nii quoi. mais adduna la. mais xam nga rek bàyyi ma xam nga la quoi mais bu beneen yoonee yaay daan waaye man kay bàyyi naa bëre. ja eh, eh, eh. bul waat. Bécaye man ma bul waat bul waat. Eh, mbay défoncé. waaw bul wax de eh. ah. yow nit ñi li daan ñu la ëpp doole yëpp. mag waaw ëpp la yëg ne ngi ne daan barki démb. Ah. Ah, te mooy buru. te daan na ñëpp ñëpp la daanu ko. waaw nu mu daanee tey jën. lamb ak loolu. waaw loolu dara. ndeysaan. oh turandoo Pape Babacar Mbodj ka réalisateur la. Mbaye Diagne Sire lañ ko tuddee Mbaye Diagne Sire lañ ah Mbaye Diagne Siir lañ ko tuddee. Mbaye Diagne Siir lañ ko tuddee. ndeysaan Babacar xoolal Babacar di jaay ay turandoo papa ba wutal ko combat. rey nañ ko. eh eh eh, eh kii fu mu jëm waa léegi. eh kaay. kon mais nag Alaaji Alaaji Birahim nag. di foncé li muy jooy El Hadj Pape. ndeysaan. Kanji ngi nii. Kanji ngi bi combat bi taxawee. bi combat bi taxawee laa ne Kanji. waaw ah. est-ce que est naa bëre kooku. mu ne morom la ma a ko. ñaari mbër yaa ngi ci dugub gi su nga seetal ko ku koyof ku a bëreel. mu ngi nii toog wax naa ko. parce que man xam naa li ma yor. gars yi dañuy lijjanti combat ba am. waaye da ngay ñor door dem ci arène bi. Pape Pape da ngay ñor. waaye Alaaji Ibrahima Alaaji Ibrahima. waaw nit ñàkk naa préparé combat ñëw daan. ñi préparé combat daan. békay cest à jël moo ñëw. békay nekkul ci yaakaaroon ni jël moo ñëw rek nekkul ci préparation bi yéen yi tële la parce que bu yaakaar ne tële rek man pas bien. lamb ji békay euh, man da cee bokk tële da cee bokk. waaw léegi bi ah, Kandji. jërëjëf békay ñoo ngi sant yàlla julli ci yonent bi. waay gërëm suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Galas Mbacke Dar Rahman di gërëm Sénégal gépp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ñoo ñoo ngi sant bu baax suñuy sponsor yëpp. ndeysaan bàyyiwuñu kenn di sant ñi nga xamante ni bi ñoom. Babacar mbër boobu ci gi la géwël yi jox ma ko. kañ ci xaaral. waa kay. waa indil son bi waay. waa boobu baax na. ayca kañ bi. ñoo ngi sant bu baax ñi ñu jàppale ñëpp bàyyiwuñu kenn di gërëm suñuy sponsor ay ren groupe bàyyi fàttewuñu ko ak Vitale ak ak ak Barale. alfina mintu magao warga teranga di bitiri baxayda alfina ñoom ñëpp ñoom lañu sant bu baax a baax a baax di wax ne damay indi rek ci Ibrahima wax mbay défoncé moo ma wax ne ma moom moo bëgg Jackson moom moo ma wax ne ma moom moo bëgg Jackson mbay défoncé moo la ko wax moom moo ma wax ne ma nañ ma jox Jackson man yaakaar naa ne amul combat bu may jógi di xool ay choix ay mbërëk affaire yu mel noonu mbay am na kuñ ko waroon a jox mu ne bëggul kooku Jackson la bëgg ma jox ko Jackson. ba mu ko waxee tamit bi mu ñëwee laa ko ne laa ko ne booy est ce que mu ne ma mbayee ko bëgg nii la ma ko waxee da mbayee ko bëgg. waaw parce que xam nga lu yow léegi. ah soo amee bid ne jox ma diw. waaw xalaat ne moo ko man. waaw léegi nag. Birahim léegi dañuy régler beneen problème. waaw gars yi doon bëri léegi nee nañ yow yaa doon wutal mbër bi licence. nga leeral ko. xam nga loolu bekkaay li waaw licence bi Sëwru Fall jox na ma ko y'a un mois avant la combat. waaw bi ma ko joxee boole na ci li nga xam ne moom la ñuy renouveler licence xaalis bi waaw 6000. 6000 la booy bi. waaw 6000 waaw. bi ma ko joxee. jox naa ko ki nga xam ne moom la régulariser le combat. waaw jox bi ñuy yóbbu reliquat bi. ba tegaale ci xaalis boo xamante ne ci licence bi ñu complété ko. micro lu manque ci licence ñu complété ko. waaw mais xëy na boo xam tam xelam moo fàtt càmme tam kanam fat bañu régulariser combat ba egsi mais xam nga ne ay 6 000 francs ay 4 000 francs ñun ñi tëggi combat bëgg nañ bëri bëri ah. loolu xëy na erreur la ak malentendu la rek mais amul benn prétexte mais leen luñ ci jublu lu tax ñuy bañ bëri bëri waaw bi erreur amee lu tax demoo CNG jële non fii laa ko xamee downu woo léegi ak Cheikh Ndiaye ne ma mbër bi yees ne ma soo ko teeloon a xam dañ koy def bëri simple mais avant ma koy yëg man jox mais xam nga ne ñun tëgg suñuy combat buñ sañoon xale yu bëre ay six ñu yàqu mbëri combat waay ñeen fay ëpp na loolu bekaay waaw di sant ñuy jàppale ñëpp waaw dëgg la yi xale bi joxe na six mille francs joxe licence simple mu nekk seen loxo xanaa di ko topp pour licence bi egg non seulement dinañ ko topp pour licence bi egg mais day bëriwaat le 29 juin incha allahu rabi stade Amadou Barry parce que lii erreur la te ñun ñëpp kenn la ci dëgg merci ñu ngi lay gërëm bu baax parce am na solo. jërë jërëjëf. Kange ngi noonu. Kange ngi noonu. mooy le promoteur. bi nga xamante ni Ousa numéro 2 ngi noonu dugg ci diggu géew bi. Ousa numéro 2. jërëjëf. mais liiru jaane ngi ni liiru jaan nam nan la waaye làmb ji yaakaar naa ne dëkkante bi bari na. te boo ñëwee ci làmb phénomène bu ne ngay gis. lamb moom day feeñal phénomène façon bu ne ngay gis déeb déeb yaa ngi noonu ñuy takk ci tànk déeba déeb yaa ngi noonu Falaye Balde junior wala Jules Jules Balde junior Jules Balde senior moo ko doon takkal téere yi ci tànk bi liiru jaan liiru noonu la. ñoo ngi lay fay père ah, ñoo ngi leen di su ma sant yàlla ak yonent bi julli sunu ñaari waajur. ñoo ngi sant sunu ñaari waajur. waaw waaw dafa am lu ma bëggoon leeral. muy lan. Euh, père man yàlla dafa def ma am ay doomu aadama dem am ay nit ñu may jàppale. Bécaye su ma la waxee benn affaire di nga ko gëm. Bécaye ah. kañ laa gëj a te maa ngi sant yàlla liggéeyu ma. lu ma bëgg maa ngi koy def. maa ngi sant yàlla bu baax xam nga benn affaire moo am ah. sama diggante Xaadim dafa taxawoon ci wal fajiri mu leer nañ promoteur bu woote joxe ay kàddoom léegi mu dem ba ci biir laaj ay yeneen mbër comprendre nga fekkee dafa ragal na ma wax mooy su bëreeg man maa koy yóbbu retraite. ban ban Xaadim Njaay la. bu mag Xaadim Njaay numéro un sur ah, combat. Xaadim Njaay du ragal. loolu ah. ah non da koy seedeel lu noonu yow wóor na leen ne Njaay du ragal. non waaye man damaa ragal man békaay man du ma ragal. man ah, non non man waxuma la ragal waaw waaw.